waa li waral ma ma engage ci lii Najib Sagné moo ma moo ma moo ko def ci sama nopp dama fekkoon daaw may joxe doo PMI ak ay handicapé ma leen jox doo mënoo ma dama léegi lenn moo des soxla naa ay lunettes pour élèves yi parce que am na élèves yoo xam ne jàngatuñu ndax lunette ma ne ko loolu nu mën a am mun ma am na de am na ñoo xam ne arrêté nañ seen jàng ndax amuñu lunette man ni ko man j'en fais mon problème su ma demee bi yoon États-Unis duñ ma ñibbisi te indaale wu ma lunette ci loolu moo tax ma indal indaale ko parce que moi je trouve inconcevable xale bu tok amul lu mu takkal ñoo ci tëngeej gi nga xam ne nekkuñu ci all ba ay autorité ngi fi ñepp a ngi fi peut-être yeen tam yéen a ko yëglewul yu mel noonu problème bu amé da ngeen koy wax parce que problème tant que waxuñu ko du mëna faju parce que man na ci bu ma waxul won damay continuer def do may lu ne di ci bok parce que nekkul won sama bop nit ki boo bëggee mu def da nga koy fatali xëy tam autorité yeguñu ko même au niveau du ministère de la santé la min ñam ngi ni xëy la direction sociale

pour yi ñuy monter ñu monter ko ci mais yemul fii yéen a ngi sama numéro de téléphone ñu nga xam ne maanaam xëy na amuñu ci yi ñu def ma signe ma wutal leen seen seen seen loolu. parce que lii bu fekkee da ko ciblé pour jox ko xale yi te ñu constaté ñun fii si hôpital bi euh, xale yi dañu bari lool lu ñuy ñëw fii si service ophtalmo dañu am problème mu bët. te loolu gën a motiver gën ñu pousser ba tax ñun tey ñu am service ophtalmo bi pour mën a di taxawu waa Tëngéej euh, ndimbal li nga ñëw fii indi ko muy yow madame Aïda Sabara ak ñi nga àndal sa délégation euh, jàppal ne dina dina dem fa fa mu war a dem parce que xam nañ ne xale yi sonn nañ am na ñoo xam ne ne des fois dañuy jàng école ba bu ñu demee sax seen jàng du yegg ndax problème mu vision donc ni mu ñëwee nii ak somme bi nga si boole incha allah avec le chef service ophtalma dina xool nan la mën a organiser ba xale yi ko war a jot yëpp ñu fexe ba jot ko Euh, liñ la mën a wax rek ñu lay remercier di la ñaanal yàlla te mu doon loo xam ne ne aussi mën nañ ko gën a continuer lëkkaloo bi mën a doon faneen mu bañ a yem fii te xam nañ ne doom waa Tëngéej nga donc lii boo ko defee Tëngéej defe naa dañ lay njukkal donc ñu ngi lay remercier au nom du centre de santé au nom du personnel au nom du comité de développement sanitaire au nom du médecin chef et du chef de service de l'oftalma ñu ngi lay remercier di la ñaanal ah di remercier nag profito di remercier suñu mbokk mi nazir Sagna ak mbokk mi depuis bobu ba léegi mo ci doon dox ba li tay sotti. xalé yi buñu buñu nekké classe ñu ci bari pour ñu gis bu baax da fay jafé ci ñom parce que dañuy am problème mu bëtt indalé ko légui buñu ñëwé nak nag ndax ni fiñuy toggé ak ni tableau bi di yaato ci seen bëtt amna fo xamna buñ fa toggé yenen ko yi duñ ko gis parce que loolu yëpp amuñu ku leen suivre amuñu li net ñuy tak même bu dé dem nañ ci docteur. mais bu ñu leen bindalee lunette seen i seen i doole waajur du ko mate pour ñu mën a jënd lunette yooyu loolu moo tax tey jii te lii ñuy lii ñu leen di defal dina leen dimbali bu baax te dina tax dootuñu teel a bàyyi. am na si ñoo xam dañuy bàyyi école waaw parce que am na si ku ma xam boo xam ne loolu moo ko tax a bàyyi def na benn classe ñetti yoon mënul jàll parce que leçon yi sax boo ñëwee ubbi kayam doo gis benn leçon bu mu bind parce que du gis bu baax te papaam dafa gaañu ñaari at ci ginnaaw xaw ma loolu moo tax yaayam amul doole bu muy jëndalee lunette te lunette yi ñëpp xam nañ ne Sénégal dafa cher donc loolu daal moo tax moo tax lu mel nii moom lu lu jara lu jara félicité la